Léopold Sédar Senghor ku yàlla yéenoon Sénégal la mu ñëw dox fi mission euh, politique du woon métier am dafa ñëwoon pour wuti xam-xam jàng sax ay thèse gis réew mi nekk jafe-jafe ca xata ci biir ndep ci colonial mu fas yéene liggéey pour wàcce coono nit ñi loolu moo ko dugal ci politique mu ñëwoon fekk fii magam bu ñu wax Papa Lamine Guèye doon SFIO kooku ay yaatal ko ni ko na nga ñëw ñu bokk liggéey noonu la ñuy dugg ci parti SFIO ñu duggee ci biir Sénégal ba dem ba ci biir gis na am na ay jamono mu ko dem sos parti boppam BDS te ko parti démocratique sénégalais lépp dafa noonu daal di bëgg wàcc coono li ñu li ñu ko waxee moom mu njaamu béykat yi yéegi Sénégal ci kaw loolu moo doon sabab bi ci la créé parti BDS jamono dox itam ba mu jubóowaat encore ak la mi ngi bi kenn woon ñu bokk ànd créé union politique sénégalaise yàlla def na man 1958 bi ñu créé union politique sénégalaise UPS euh, maa ngi woon ci Chantecourt ci réunion euh, mu diriger parti bi nekk na député plusieurs fois ñu jël indépendance mu jàllog te ci bopp réew mi borom xam-xam la woon naka jekk nag moo dafa wax ni l'homme est au début à la de tout développement moom dafa jàpp ni lépp lu nit def ci wàllu politique lépp na nga jiital nit ki benn ñaar bi tam mu ni nit ki da ngay sukkandiku sa sa baax baax baaxu réew soo ko tàll leneen ñuy wax enracinement et ouverture euh, ñette mun jàpp ni nit ku ne war nga teey fi ci séddalee nga yóbbu dara jëlee fa dara ñu wax rendez di donner di recevoir euh, jàpp itam ni adduna ëllëg la adduna jaxasoo la ñaan hmm. la civilisation de l'universel hmm. dafa mos jàpp ni benn race warul gën a kaw kenn warul nangu suufee hmm. euh, moo taxoon ci ci wàllu xalaat mu sukkandiku ci li ñuy wax négritude nga xam moom la wax ensemble des civilisations du monde noir ni ku ñuul war na am aar cosaan loo xam ne fu ñuy wootee xam-xam ab baax mën na ko fa yóbbu ci yooyu la sukkandiku nag bi jëlee indépendance itam nag yàlla may ko xam-xam ndaxte moo nekk premier agrégé bu ñu bu grammaire jàngale ci réew tubaab ni ñu waxee daan jàngal tubaab ay tubaab jóge fa ñëw ñu sos réew mi itam su mu jaar ci école am séminaire organisation def ci boppam loo xam daal maanaam lépp lu muy def day nekk lu xalaat nas ko déggoo ci waxtaan ci sos ko concertation donc l'arbre à palabre ñu ko daan waxee diisoo euh, xool li ci réew mu ñu def ko loolu moo indi système régime socialiste mu defoon nga xam ne socialiste moo di fexe ba nit ki ñëpp mën a dundu ci di mu gën a téye li ko waral nag faw nga am état bu dëgër mu taxaw nag gàc ci dango ba kanam li gënoon na fu fi moo di Sénégal am administration am état boo xam ne dañ ko nayoo fu ne mm-hmm. loolu moom ci nekkoon ak te mandute ci waaru alal ku xam Senghor xam ni euh, alal mosul nekk problème nekk na fi ba jógee fi benn kër la am te daf ko jënd fay ko mosul nangu ku saa saax àllu bi dafa jàpp ni àllu réew mi pour réew mi la waaw dégg naa sax am na ñeen ci parti bi dañ doon wax dafa nay ndax buñ daan def xëy na yenn affaire yi bëggoon mu décaissé wala ñu am nuñ doxalee da ko daan bañ loolu am na mag bu ma ko wax. waaw am na ci benn fii parce que amoon nañu ko ci benn maire de commune bu ñuy wax Adja Ndoumbe Ndiaye. Hmm. ku ci parti parti BDS la nekk moom bu mu ñëw. Hmm. ba ñëw ba nekk président nag mu ñëw bis de ku ñaan xaalis ñun dégg naa seconde ko Adja Ndoumbe xaalis bi nekk fii xaalis bi réew mi la <laughs> man bi naa benn téere maa ngi koy jaay. su jaxee suñu ma mu jox sa wàll <laughs> ni moom dafa mos ñu ko xam xam ne amul chekiyam soxna moo moo ko daan signé hmm. affaire xaalis mosul nekk problème moom fu su daan si ay réew ba ñu naw ni ngi si xaalis alal hmm. man te woon xam-xam fu ñu woone xaalis moo xam-xam hmm. donc ci la créé donc rési boobu organisation et méthode fonk liggéey fonk cadre yi ku ne fexe ba ñu lépp luy fu ñu jaay xam-xam ñu du fay ne ñu sos loolu. parti socialiste bi ñu créé wu ñu itam également parti d' organisation des maîtres parti nga xam ne la maïs paysanne ñaan toppatoo. ci organisation des maîtres tax na ba dafa daan def nii tous les six mois dañuy def conseil national. conseil national bu ne day am ne thème. thème bi dañ ci discuter su ñu joxee thème ni ñu créé parti bi nga xam ne parti socialiste comité la commencé woon mooy cinquante personnes ñu ne. da ngay man da ngeen am comité. comité yi ba am ci benn quartier. ñu créé sous section. Hmm. suñu demee ci quartier bu mag a ñu def section. def coordination pour pour dëkk bi. Hmm. def union régionale. def con conseil national bureau politique. su thème génnaan ba ñu def discours texte dañu mën a rapport rapport bi comité ba dañu commencé examiner. Hmm. comité joxe avis coordination joxe avis bu ñëw ba conseil national su ko defee xalaat yi yëpp ci région yëpp loolu la la concertation moo tax thème bu mu mosal am dinaa réfléchir di si jël li ci gën a njëriñ di ko def ci réew mi loolu moo structure bi donc noonu la lu ba léegi soo gisee parti socialiste deewul ba léegi moo di quartier boo dem comité nga fa vivant ou dormant léegi nag maa ngay ñëw xale yi ñu war a renouveler mais moom noonu noonu noonu la kooku mooy Léopold Sédar Senghor ak ni mu doon doxalee alors euh, lan nga jàpp euh, ci sengoor loo xam ni jàpp nga ne lu jarta fàtte la lu ñu war a téye la ci wàllu politique surtout ci doxalin. li war a ci politique mooy éthique parce que dafa fonkoon yow euh, kersa mu ñu jom ak ngor. mosul nangu ku trahir wala kuy wax waru wala tappale moom dafa mos a wut vraiment lépp lu ñu def rek ñu def ko ci dignité ci honneur respecter ay principe principe la mos a répété mosul nangu vraiment ay yokku élégance également daal dans le débat bëgg nag culture lépp ñu waxoon ma ñu su ci xam-xam xam-xam la mos a la gëm moom gëm na juddu ak xam-xam mooy indi résultat alors si tey lan lañ fi war a jàpp te teel na jóge si si nguur gi deful quarante ans euh, comme ni ñu koy waxee P euh, PS wala les socialistes euh, ñëw na ba xëy na fi mu jàpp ne fa war a yem. mu jox Abdou Diouf lengay mais gouvernance su Senghor lu ci sénégalais yi war a jàpp. li ci war moo di na un fexe na ba le tribalisme ñu écarté ko. et de séeréer la minoritaire di catholique minoritaire jullit ñoo ko fal sëñ falu Mbacké xalif dana ak si Ababacar xalif Ababacar si ñoo ko jàppale jàppale ko mu dem moo ko moo ko wane benn xeet dafa yemal xeet yëpp ñëpp noo ko. am na lu mu leen won ba mu jaral ñu jàppale ko. Mm. séeréer la séeréer ëpp ñu mm. catholique ëpp ñu waaye li ñu ci jikko rafet jikko ak bëgg-bëgg réewam. ak itam mandu mandu ci wàllu alal parce que kenn mosu ko gis mu mu wut alal wala muy garab dafa mandu ci alal lépp du doylu dafa mosu mandu doylu alors loolu ni gis ndaw ci la base ni foo ñu nekk modèle xam-xam bi ko yàlla mayoon na moo tax mu impose modèle boo xam ne bii ñëpp dafa dafa daan roy Fra bu woon France xeeb yàpp ko maa ngi fàttaliku dama nekk ci ambassade Sénégal au Caire mu ñëw fu visite officielle tango Gamal Abdel mm. nga xam ne boobu naar yi tëgg ñu ñu dara dañu xewoon mm-hmm. les arabes avaient un certain mépris mu nekk tout ça mu ñu def conférence sur négritude arabité mm. civilisation universelle waaye bi mu ñu recevoir ci par ñu xam nga lu mu wax mm. na la ñu wax yàpp bu leen naar c'est-à-dire moom la dignité. Mhm. négro-africaine waaw il y tenait il tenait à la te euh, yàlla may na ko moo tax Sénégal ñu naw ko fu ne ci bitim réew. lu ñu waay jàng jàng amoon xam-xam yépp dafa gëmoon xam-xam jàng liggéey ak njub. tey bu sénégalais yi doon bëgg téye ay réalisation wu Léopold Sédar Senghor bu génnee ne xëy na moo tabax nation. Hmm. lan lañu ñu mun a téye si lu mu fi bàyyi. ñu fay moo di l'école sénégalaise et puis nga xam ne lépp luy xam-xam bëgg na mu feeñ bon la école de médecine bu Sénégal euh, référence la université de Dakar ñu ko nawee fonk ko référence la même sur le plan culturel l'école de Dakar sur la culture les arts la la artiste peintre nga wax Pape Ibra Tall wax euh, Ibou Diouf wax Iba njaay ñun ñëpp daw ñoo ko ay ñoo xam ne fu ñu exposé ci bitim réew ñu fonk parce que loolu dafa noonu Sénégal war na wone li seen àdduna li nit ku ñu mën am ko culture particulièrement da ko yitteloon daf ko yitteloon daf ko yitteloon mu jàpp ni nit ki li muy lekk baax na waaye fexe fexe ba fa nitee ba fu nekk ba ñu mun nag royukaay ci ne am na solo c'est moo moo doon son combat pour la négritude moo dem moo tax mu créé fii le premier festival mondial des arts nègres dajale fii at àdduna yëpp ñu fonk loolu woon la woon pour ne ni am na lu ñu war a wone bokk ci àdduna bi te kenn war ñoo xeeb ci dara euh, li mu déggoon nag dëgg-dëgg moo di euh, pour moom politique yoon la rek mais danga nga foog nga am xam-xam jàng man la ba noppi nag soog a dugg ci ay parti de politique mosoo jël kenn rek jël ko nii dafa mos liggéeyuloo xamuloo dara dugal la bala ngaa doon bala nga doon responsable da ngay am loo wone ci sa liggéey te itam nag mosul jaawale liggéey ak ak ak politique administration bi dafa teg fële am ay réglam politique bi nekk fële ku bëgg ñëw ñëw bu dugg mais mu état bi fonctionner parti bi moo koy xalaat mm. ci la la doctrine xam nga boobu bi ñu soog a ñëw boobu ñu ngi woon tàngu les les blocs. bloc de l'est bloc de jafe-jafe yu méttee métti. alors euh, ñu am ay jeunes intellectuels yoo xam ne ñaan ndax c'est un réactionnaire. alors parce que des marxistes léninistes ñooñu nga xam ne tey moom mun leen il faut créer la voie africaine du socialisme. il faut lire Marx et à la base sur la philosophie négro-africaine. moom loolu la te léegi tey ñooñu ñëpp ko doon xeex démb di wax dafa réactionnaire. léegi tey nangu nañ ni si dëgg mu amuñu parce que léegi tey léegi xam nga doo gis kenn ku nangu ni man marché la li nislas amul mm-hmm. <laughs> parce que ay fa xale la woon rek mm-hmm. màgg nañu gis nañ ni war na jël ci masque mm-hmm. lu baax jël ci leneen jël ci keneen jël ci àdde jardin waaye jël tamit ci Kocc Barma jël jël suñu àdda suñu mag ñi li ñu amoon nga nga boole ci alors moom fonk loolu fonk fonk diine yi respecté diine yëpp respecté tarix yëpp respecté nit alors li ñu war a jël ci moom moo del retour aux valeurs cardinales les vertus la société africaine maandu doylu euh, yemale si bëgg-bëgg respecter également yoon respecter yoon mosul nangoo ku transversé yoon da ko moom ni mu moom jàppo ñëw pour politique mm. daf ci dugg par accident moo tax mu mos nekk moo moo dama doon ba xel ba dama ba bàyyil boppam mm-hmm. dama kenn bàyyiloo ko mm-hmm. bi mu ne ba xam ne léegi ñu ngi commencé jëm mag mm. day fàtte mu daal mm. damay damay bàyyi te koo xam ne yaakaar na ko que ko formé nekk moom mm-hmm. euh, pendant pendant dix ans gis ko ci lu ne mm. mu jàpp nekkoon premier ministre Abdou Diouf mu ne kii xam naa mën naa ko bàyyi mu continuer réew def sama sama projet alors mu ngi fi bàyyi aussi ak état bi mm-hmm. ñëpp ndangoon nañu Sénégal administration état gouvernement mm-hmm. amul réewum Afrique ku ci roy ku ci loolu def am na ci des ba léegi ndax tey Sénégal yi nekk ci organisation internationale yi bari nañu foo fa doon ci àdduna bi Sénégal yi tekki na fa parce que loolu si Senghor gëmoon ñu exporté ñu wone la l'Afrique à travers le monde alors bala muy bàyyi di jox ab Abdou Diouf euh, réew mi euh, am na lu bari lu jot xew ci régime am euh, mun nañu wax crise 1968 ak 63 peut bi ñuy manifester contre sa candidature à la présidentielle ba bakkan yu bari rotoon si allée du centenaire ci Ndakaaru mais également beneen xew-xew bu ñu doon fàttaliku yàggul dara muy motion de censure bi ñu defoon ci ci gouvernement wu président du conseil Mamadou Dia crise 62 boobu mm. alors Euh, ñu tàmbalee ci euh, digganteem ak Mamadou Dia nga xam ne fukki fan ak juróom-ñaar weeru décembre bi la ñu doon fàttaliku euh, peut-être ndoxteel wala en tout cas li mandargaaloon ne y vraiment problème entre moom ak Mamadou Dia loo ñu mën a wax ci relation boobu ak crise bi waaw événement bu ko gérer surtout 10 décembre 1962 nattu la ci Sénégal ndaxte Senghor ak Mamadou Dia suñu àndoon pour tàggoowuñu kon sa nga doon weesu fii lu bari bari bari parce que ñaari at yi ñu jot a rek ah, am na lu mu avant ça parce que dañu na nawante noppal nawante bëggante. parce que fédération du Mali jaar na fi. mais bi fi tas Mamadou Dia moom Senghor la tafoon ci bakkanam mhm. waaye nag grande puissance ak yeneen ente particulier ñoo dugg ci diggante bi jaxase leen parce que ni ma ko waxee léegi xam nga yooyu jamono am na bloc de l'est ak bloc de l'ouest ñu jàpp ni Mamadou Dia dafa naa def privilégier l'est alors le l'Occident la France tout ça jàpp ni kii suñ ko suñ ko bàyyee ak Senghor dañ ko dañ ko jéem ñu fexe leen détourné ñu fexe leen dañu féewale du bëgg bëgg Senghor du bëgg Mamadou Dia kenn si ñoom bëggul woon war sa morom kon kan moo dox ci diggante waa mais seytaane dog dog fexe ja jaxas leen féewal leen. xam nga seytaane Occident mun nañ xalaat France. oui oui en fait c'est c'est indéniable c'est la la France vraiment ne voulait pas du Mondial parce que commence à inquiéter la preuve avant ñuy def ku d'état moom mu ngi jóge voyage Moscou. waaw te yow itam xam nga loolu donc. ñu laale bon Mamadou Dia aussi dëgër na ci principe. il était intransigeant sur vraiment en avant sur plan de la rigueur loolu nag neexuloo ñu bari loolu moo indi mais biñ demee bu joowaat si nga xam ne accident accident la ñu dem te nag xëy na loolu itam gàllankoor Sénégal parce que nattu du wees teel ko am nag bu tax parce que xëy na su loolu amuloon fenn kon du ñu am ay coup d'état yàlla def na moo coup d'état bi mosu fa lenn mosu fi am te ko ba léegi ñu ngi koy ñu ngi koy vivre comme la nattu accident de l'histoire doo xam ni vraiment Sénégal mérite ko waaye nag tax na yan leçon la ñu war a jàpp euh, ci crise 62 boobu politiquement. waaw xam nga euh, ñu ngi doon soog a ñaari indépendance xam nga ñaari atu indépendance maturité bi. waaw ci réew mi xale la woon xale la woon. te itam euh, ñi yi di foon bàyyi wuñu <coughs> te itam bëgguñu woon li amoon parce que 1958 xam nga Guinée dafa génn union communauté bi. Mm-hmm. gis nga jafe-jafe yoo dal. ñoon bañ kenn kenn génnati ñu mm. seen loxo bëgg Sénégal moom te bi ñu ko fonkoon lool. dañu fonkoon lool ñoom bëgguñoon dara. nekkoon capital AOF am lu représenté lu bari si ñoom. am lu représenté te ñu def lu ne te itam ñoom ñu xam ni depuis Faidherbe xam ne Sénégal am na loolu yàlla may. Mm-hmm. daal fii moom nañ fexe ba lu nar a xaj xajamal ñu di ko nañ nañ nañ doon non non non jaxase. donc loolu moo xewoon véritablement en 60. waaw waaw waaw. alors ñu ñëw keroog bi manifestation yi amee allée du centenaire ndaxte président Senghor dafa présenté woon peut-être yeneen candidat yu bëri yu buggoon bokk munuñu woon bokk ndax amuñu woon euh, ay parrain euh, comme ni mu waroon a demee euh, si député yi nga xam ne ñoom ñoo leen waroon a peut-être taxawu. Mm. jox leen li ñu soxla pour ñu nekk candidat crise bu mel noonu naka la ko président Senghor jiite. Ah. géré autant que. ah Senghor il est humaniste. Mm. mosul nangu lu metti lu xeex. Mm. alors euh, c'était un démocrate aussi waaye ni ma ko waxee moom daan dafa daan discuter ak nit ñi ànd danaa ñëw ñu mettre en minorité mën nangu ko bon crise bi passion yi ñoo ñoo passion yi bon ñu ko waxee rek candidat yi bariw nañ euh, les marxistes moom si tel moo fi nekkal colon yi donc foofu ñu jóge fi ñooñu jàppale alors euh, daal di nag boobu évolution mante demule woon noonu euh, bon Cheikh ñëwoon na ak ñoom Ablaye tout ça mais mm, Ablaye Lipra donc euh, ak BMS ak yooyu ñu mu metti si daan dugg ñu deewoo mais daf doolu luñu rafetlu c'est tâche noire la ci politique bi parce que vraiment du lu ñu saful lu ñu bëgg parce que il a il a un non violence on n'a jamais été pour la violence parce que nangu violence. naka la dundee crise boobu. Ah, crise la c'était une vraie crise parce que y avait de morts. y avait beaucoup de morts y avait de morts parce que euh, ni ma ko waxee boobu tubaab yaa ngi fi encore jóge fi woon. bari ngeen doole lu jaxase réew mi. Mm. arrangé leen alors euh, ñëwoon ci biir aussi. ñëwoon ci biir ñeneen aussi di révolution parce que boobu nga xam ne ay Che Guevara ak yooyu ñu ngi doon xalaat ay ay euh, révolution ou bien tout ça utiliser la la violence donc mu nekk confrontation. kon suñu la déggee politiquement français yi génne wuñu woon seen loxo boobu ci Sénégal. est-ce que du ñoo doon euh, xëy na favoriser un peu sax candidature indi bu Senghor nga xam ne leen di wóor ne moom day jàll parce que ñeneen ñëpp presque dañu radicaloon. en en euh, moom c'est-à-dire Senghor nag. ni ma ko waxee léegi. moo leen gën a a taxaw parce que moom. dafa am parti boo xam ne bii dafa am ramification am ñu ay ay ñu ko téye parce que ci li fa diine boo ñu ngi fi. El Hadj Fallou Mbacké rahmatullahi alayhi Alif Ababacar Sy Nooru Taal ak ak l'église <laughs> ñëpp ñëpp ñëpp joxal ko. ñëpp moom lañ jàppale ñëpp moom lañ jàppale. parti bi itam foo dem ci réew mi dëkk boo dem parti baa nga fa ñenn ñi nag. dëkk ba Ndakaaru ñu ne woon xam nga intellectu ñoom ñaan am nañ capacité de nuisance waaye amuñ surface électorale bu doy mu jël jaxase nag pour fii parce que coow li coow li yëpp Dakar la woon nag hmm. waaye du woon ci biir Sénégal yëpp ah Sénégal moom ci biir Sénégal yëpp nag parti des masses moom PS PS la bi c'était Dakar c'était Dakar c'est parce que Dakar fi la fi la intellectu nekk et nag mooy capital bi rek fi la fi la intellectuel yëpp nekk mais masse paysanne bi ci yeneen dëkk yi ñoom li ñu xew si ñoom itteeluñu woon yàgguñu amaguñu maturité pour di suivre suivre loolu ah. si ñu si ñu fa la waxoon ku ñu saxoon di wax rek. Mm-hmm. wala xalifa Ababacar si wax maa ko boot. d'accord kon loolu moo nekkoon chance su Senghor alors vision wam tey lan la woon fan la euh, tegoon lan moo nekkoon laa cëslaayam ngir suqali réew mi weesoo culture xam nañ par exemple ne ku fonkoon mbay la lan moo ci nekkoon vision wam vision moo di le li nga wax barigo junni xam nga bi mu njëkkee dafa commencé mel ne dama bëgg barigo junni parce que le barigo mooy le le centre d'arachide mm-hmm. c'est pour lui dafa mos a pour li nga xam la la détérioration des termes li ñuy wax l'échange inégal <clears throat> li ngay jëndee li ngay bay di ko jaay li nga koy fay du njëgam bu bëggoon ñu équilibrer les les champs pour pour ñu supprimer la euh, lutter contre la différence des termes de l'échange bëgg na paysans yi am seen noonu mooy régime moo tax ñu am injustice d'encadrement lépp xam nga y avait la la la la la SMDR y avait des structures d'encadrement du monde rural pour leen dimbale pour seen bay mën neen jox lu ñu dunde ba tekki parce que dafa ni li lii ki li muy béy war ci mën a mën a dundee vraiment il pour le développement de l'artisanat de de de l'agriculture la pêche l'élevage ñëpp ñu encadré leen ñu am seen moyen def des village modernes am seen lim di waxtaan que à l'an 2000 vraiment la la civilisation du Fès va accéder au Sénégal loolu vraiment ñu promouvoir ko moo tax ministère yi dafa daan ay ministères yoo xam ne day encadrer le monde rural. dafa def ay journée du machine agricole dafa di tournée hivernale dafa tournée rek at chaque mu dem tournée. xool comment. mbay mbay mbay mbay mi ànd bu ñu ak mu am conseil national sur le le le bon paysan. mbay mi ñoroon na ko lool ñoroon na ko. moom euh, affaire usines yëpp du woon préoccupation dans un premier mm-hmm. daal moo di culture ak agriculture ak ña mm-hmm. njàng ak ak ak mbay mm-hmm. lu ñoo ñooy développé également nag par le régime socialiste nag et puis comme éviter des écarts importants soo gisee fonction à l'époque salaire yi c'était raisonnable mosoon nangu ñoom ay salaire yu mag a mag a mag fonctionnaire parce que écart yi nee na ça ne suffit pas Euh, nous sommes une société boo xam ne bii woon frustration. ci liggéeykat yi comme tey. non xam ne ñii dañuy yuuxu ñu la yuuxu yokkal nañ ñii nañ ñu yokkal amul woon. amul woon amul woon parce que euh, d' abord statut fonction statut de la fonction dafa yemoon. dafa am activité objectif. niveau bu ak li ñu correspond di jàng yarasi lu jàng te ñu yëpp ñu bokk lu jàng ñu bokk lu ñu fayu. Hmm. tey nag loolooy problème. waaw fonction publique. amoon li ñu la la leçon introductoire la leçon introductoire les statuts les fonctionnaires xam moom fonctionnaire yépp hiérarchie bu dee ñoo ñoo ku ci na xam ni jàngalekat nekk hiérarchie A moom A A yëpp. noonu xam ne c'est à tous les niveaux à tous les niveaux ñëpp nangu ko et puis les les avantages étaient raisonnables te itam pour ñu nit ci fonction directeur. kenn daawul dem te amul enquête de moralité. ah oui ah oui oui bala directeur de moralité. c'est de bonne visite moo ko jox directeur. boo mësee détourné doo bokk. xalaatu ko xalaatu ko xalaatu ko détourné wala nga am sa euh, comportement boo xam ne matoo kilifa. Hmm. enquête su ñëw ñu teg fa du du du de Seko bu dekki woon dina waar ci Sénégal. ah moom moom loolu mosu ko fi moom rigueur rigueur rigueur rigueur mosul tribalisme moom du woon problème daan ñoom ñoo xam xamul leen sax moom na niveau yi ñëw rek. et puis nag mu daan nekk opposition terewul ku ku am xam ku mu fonk la. Souleymane Bachir Diagne bi mu nekk agrégé du woon daaw loolu politique mais daf ko daan naw kon képp ku am diplôme ba kay foog amee rek ñëw la doon doxal méritocratie la la doon doxal te bëgg ni ku ne def yem nekk sa métier. Mm-hmm. bëggul ku xam dugg loo xam du sa métier parce que pour pour avantage yooyu vraiment respecter les principes de vraiment l'équité la transparence puis l'organisation et la méthode dina ay vraiment ku ne dangay xam ne wax li ngay di jàng li lu ne mu mu ko noonu waaw alors démb ak tey la ñu wax Sénégal tey feebaram bi gën a mag mën nañ ne justice la li ñuy coow yëpp ça tourne autour de la justice impunité manipulation wala politisation de la justice justice sous Senghor naka la demee woon Sénégal am indépendance pré bi ñu serment ci Isaac Foster kooku def ko nii yow président de la république bis boo indee dëkk bu jubul dénk annulé ça presta serment de président ko mm. <laughs> loolu carrément wan wan ko ni dañu fal ci ay règle ak yoon mm. pour nga doxal yoon ñun li ñu doxal li ñu war dañ ko doxal bis boo defee loo xam ne war ci àddu dañ ko xeex wax ko mu def nan mu nangu ko mu nangu ko parce que prestation serment discours de cérémonie officielle c'est pour dire que vraiment l'ambassadeur a pris son courage à deux mains mm. mu mettre ko en garde ñu ko bul yaakaar ni dañu jox nga def loo neex ci fu ne am foo war a yem le parlement yi moo def juste def def lu war a def alors ce qui fait que les magistrats vraiment administrer indépendance euh, yoon dafa daan dox kenn daaw daaw daaw salfaañ yi son salfaañ yoon dafa respecté parce que c'est un esprit scrupuleux moom loolu la gëm loolu la jàng te itam nag gëmul tappale wuru tappale ñu jàng assemblée nationale moom ay temps c'était carrément socialiste dañuy gis des fois score cent pour cent ci ci élection législative est-ce que boobu jamono. waaw xam nga xam nga pouvoir législatif bi moom mën na boppam pouvoir législatif bu daan dox. Hmm. xam nga li ñuy wax le UPC c'est un parti unique c'est pas un parti unique c'est un parti unifié. Hmm. dafa am dafa am ay parti yoo xam ne ay parti d'accord su ko defee ba caa mu fexe waxtaan ak ñoom ba ñu ñëw. ñu seey <laughs> waaw ñu seey xam nga. pra Sénégal mu njëkk a ñëw ak ñoom Assane Seck ak ñoom Amadou Mokhtar ak ñoom Jaxar Diouf ensuite euh, BMS ñëw ñoom euh, euh, parti moom daal c'est ils appellent le le le le c'est un parti unifié. daañu mm. daan dugg si nag ñu daan tax ba opposition daawul daawul bari dool dem na ba gis nga Ablaye Wade mu mu ngi wax njombar et puis mm. Senghor musul wax lu ñaaw xamul lu ñaaw xamul. Mm-hmm. su li wax njombar bu Ablaye njombar njombar dafa mm-hmm. muus am cop cop cop cop. wala bopp bu attanul ah, karaw ah, bu attan réew bu attan réew waaw loolu loolu mais alors Abdoulaye Wade ñu mm. ñu ma ko waxee waxat jomboor mu mm-hmm. demee gis nii parce que Abdoulaye Wade nekkoon biir PS mm-hmm. xam nga PS la newoon UPS dama ne mu jëkk ko euh, Kébémer euh, donc fa en compétition ak euh, Djibril Fall ñu gagné ko mm. pour la coordination moom Abdoulaye Wade moom Abdoulaye Wade après mu dem fekk Senghor ak Khatoum au sommet de l'OUA

commencé confrère moom moom nangu nangul intégré parce que fi woon xam nga intégration ko xamul xam nga ñu lay dañu opposition ba ñoo xëy dugg mais moom dafa nekk ci biir génn hmm. créé ah. xam nga ñe dañuy absorbé unifié mm-hmm. moom dafa génn créé mais créé ci kaw nax gi dafa gi. dafa nax Senghor nelawal ko nelawal ko. d'accord d'accord <laughs> nelawal ko. ñu ko demee de contribution. Hmm. mais de contribution dama dama nekk parti d'opposition. Hmm. moo tax mu am amoon ay député première élection standard mu am 18 député pour am 19 pour am créé limité ko foofu. Hmm. mais mu mu lutter nag. il faut dire aussi à sa décharge quand même il est Wade aussi démocrate pendant longtemps vraiment. il a accepté. le démocratique. le démocratique mais Senghor moo ko bu ñu demee bëgg dugg international lañ ne il fallait effectivement ouvrir faire l'ouverture démocratique parce que l'international nangul nangul ko bëgg a dugg ci bu amul ouverture démocratique moo tax mi sax ñu ñu changé pas tout de parti socialiste ak sa démocratique créé les les les quatre courants mm-hmm. bon bon là on a ñu international socialiste mm-hmm. les la l'opposition était ouverte euh, les les partis opposition ouverte ba 81 nag ab di ñëw mu daal ouverture sans limitation. Mm. parce que Senghor dafa ni réew mi nag Sénégal. Mm. cinq parties doy que soo demee yu mag yi. Mm. nga dem États-Unis xam nga c'est républicain ay démocrate. démocrate ñaari bloc. Angleterre c'est les travaillistes les alors de suite vraiment euh, trois cent parties. dina waaru. du lu du parce que. ak yi waaj a ñëw liggéey parce que <laughs> parti à l'époque da ngay créer am parti am ay structure ni mu ko waxee euh, verticale am ay structure horizontale maanaam foo nga am école de parti fu ñu formé nii ñoo xam luy militant lu war def foo nga leen di encadré foo idéologie ñoo xam li xalaat fu nga fu nga jëmee nit ñi xam nga à l'époque ci amoon les plans quadriennal de développement social dama daan réfléchir yi ñu ñëw léegi lan la ñu war def y avait de développement économique social nga xam ni on peut les penser di ko def nga xam ni c'était l'ensemble des des idées tout le monde lañuy la ak ak objectif ko mesurer nag alors yooyu yëpp nag mais il faut nga am parti bu taxaw bu xalaat bu jox gouvernement gouvernement di exécuter ñu dem alors loolu moom euh, organisation boobu euh, moo moo moo moo moo moo moo ñu rëccu baax baax. kon bokk na ci li taxoon Senghor yéex ubbi. oui Senghor parce que il fallait d'abord ñu asseoir. vraiment euh, un état dafa da daa dafa asseoir une nation parce que télé de ngaa yeeg fii sax xam nga euh, affaire bi bi woon ba ci parti bi ak ci gouvernement bi ñu impliqué ethnie yëpp. ñëpp gis seen bopp ñëpp gis seen bopp. parce que Casamance à l'époque Émile Badiane moo doon seen représentant moom mi ngi woon na. parce que ni ko waxee moom xam ne mi ngi jóge ci minoritaire. religion minoritaire. su fekkee bokk boole ci ñëpp. du dem. moo tax mu def ouverture à tous les niveaux nga xam ne ay concertation lépp lu ñu def ñu def ko ñu gis ci njëriñ njëriñ ñëpp def ko alors loolu dafa privilégié woon l'état nation fondement solide dëgëral ko xam ne vraiment daal moom amul sectarisme amul amul tribal amul privilège de race. te boobu parti aussi dañ daan am njëriñ. parti dañu am njëriñ parce que dañuy dundal réew mi animation parce que animation rural ni ñu kan defee si dëkk bi fu ne créer de structures de cinéma de participation éveiller éveiller population yar leen yaatal leen éducation de masse am état dama ko mën def il faut état am soubassement ñu ko ñu ko ñu des véhicules yu suuf ñoo ñoo def loolu loolu. keroog ba mu ne day bàyyi réew mi jox ko Abdou Diouf yéen ñi ko jege woon nekkoon ak moom naka ngeen jëlee boobu décision. en réalité. soo bëggee dégg-dégg Senghor. ci xalaatam bi mu nekk bi mu nekk président de 1960 dafa jàppoon ne 1965. la war a bàyyi pour mu topp ay projet yooyu pour waa bàyyi coup d'état bi. mu mu perpétué programme ne moom naruloon toog lu ëpp cinq ans. dafa jàppoon ni c'est pas une fin en soi pour ne pas une fin. ñu tagaree état ba pare toog dafa nu demee cinq ans. coup d'état euh, départ am. d'accord de moom dafa naan bàyyi am 1965 li ma jëlee ci jëlee ci lay bàyyi dem topp mais bii taxawee nag ñu gis ne bon redresser. continuer mu continuer mais moom du ko euh, accroché pouvoir préparoon ne aussi parce que bi ñu xamee bi ñu defee la révision constitutionnelle indi l'article 35 pour wax ni euh, président su fi jógee président moo koy remplacé li nga xam ne mi ngi ci xalaatam pour dem te commencé wax naa je commence à vieillir j'ai des pertes de mémoire je mm. thérapie je peux je m'occuper de mes écrits alors moom euh, loolu moo gën a culture moo gën a soxlaal que pouvoir politique moom pouvoir public c'est pas une finance moom euh, la nga a si woon jàpp ni rek war na dimbale état mu avancé réew mi génn ci moom mu bàyyi jël keneen jël mm. alors loolu nag ñëpp nangul ko xam ni effectivement euh, génération yaa ngi luy sax am na mm. te nag du wax bi muy dem ci sëriñ si mu leen ni nguur kenn ko ñedd nguur xam nga xam nga loolu wax bi muy nguur kenn ko ñedd mm. te ça il faut pas s'éterniser au pouvoir ah. ay fois su doon toog ba ñu ñu koy kii. Mhm. alors parenthèse 62 donc da jàpp effectivement que ni y tentative de coup d'état. mooy li ñuy enfin ñi ko tudd noonu mooy la la le conflit. conflit bon on a eu tentative jàpp noonu ah, ah. Ah, seen diggante euh, dem na ba jàpp ne na mi ngi ay perte de mémoire mais am na ñu jàpp crise 68 bi fi jaar da koo gësam tellement après bon nekkatul daal Senghor ba woon est-ce que jàppoon itam 68 ak li xewoon yépp am na impact ci euh, démission bi. xam nga 68 euh, am na Sénégal mais du woon Sénégal rek. àddina yëpp la woon. xam nga France a commencé. <laughs> mais 68 yëpp xam nañu ko. Mm-hmm. xam nga li Senghor daal wax naan. nu ne ma la France. Mm. <laughs> ndax <laughs> France ñu def ko. lu moo yëngu. waaw ah. les intellectuels n'est-ce pas qui changent l'Europe n'est-ce pas transpose toujours les problèmes de l'Europe ici. léegi dafa mel ni loolu bàyyiwuñu. at waaw at at mu yëngatu woon. Mm. loolu noonu la ko jàpp parce que c'est phénomène mondial. Mm. alors avant ça boobu daa fekk aussi on est dans un régime présidentiel 100 pour cent. amuloon premier ministre. Ah. depuis 62. amatul premier ministre. mu supprimé ko. alors mu nekk gouverneur ci mais ci la commencé ubbi nag léegi nag. Mhm. kon il faut mu élargir le gouvernement. créer un poste de premier ministre et et dépassé comme enseignement. Mhm. ci soixante huit moo tax ci lañ def révision constitutionnelle. 1970 mhm. indil le premier ministre le gouvernement. comme ça moom mu déchargé parce que aussi ñu ko nee na ñu commencé di jëm mag. te itam nag euh, la charge est trop lourde. Ah, et puis pour quelqu'un qui a d'autres ambitions. il fallait que mu mu am équipe euh, solide quoi gouvernementale décision démission bi bettoon na leen. non non non. yéen a xaar parce que préparé nit ñi ci di day dem. préparé nit day dem am na secret bu ñu wax ni mosoo wax ni Elisabeth jabaru Abdou Diouf bu yàgg ni ko na nga topp sama moom laa bëgg dénk réew mi bés bu mu fi jógee te ça c' est c' est presque. kan la ko bëggoon e-, Elisabeth. Mm. jabaru Abdou Diouf. Mm. li Senghor waxoon presque cinq ou six ans avant. bi ko nommé premier ministre pare la ko na nga na nga bàyyi xel parce que bëgg ah, am nañu yenn am suñu yu génn. ku ne bëgg na sam sa candidat. Mm-hmm. nag loolu moo xëy na peut-être moo tax mu mu te précipité dem dem parce que bi dee day dem am na ñoo xam ne li les barons. am na ñoo xam ne ñoo jàppoon ni euh, génération Senghor lañ bokk Senghor warul dem tëb seen génération di ko jox. génération bu dem waaye moom nag jàppoon ni nii la war demee parce que effectivement. ku ji ba bari tuuti. Hmm. loolu daf ñuy dugal ci biir parti socialiste parce que baron yu bari ci parti socialiste effectivement seen frustration. Hmm. foofu la jugee ndax jàpp ne euh, sengoor du Abdou juuf la war a jox. Hmm. tëb leen ndax kenn gënu leen cee yay. ñoo àndoon ak moom. Euh, démb ñoo bokk itam génération comme ni nga ko waxee. alors démission Senghor boobu. indi na aussi jafe-jafe ci biir PS. waaw mooy li wax les barons parce que euh, Senghor daf ko xalaat. xool ko jël Abdou Diouf d'abord daf ko xam nga soo topp histoire bi 1962 Abdou Diouf moo doon gouverneur u Sine bon bi ja jafe-jafe amee tiraillement entre Abdou Diouf entre sengoor ak Mamadou Dia ñu ba ko déglu foofara moo bi ñu ko nee mu am ay gouverneur yu prêter serment am à Mamadou Dia moom bi ñu ko nee prêter serment moom dafa bañ ñu ah, ah Senghor ñu bari daal di prêter serment pour allégeance à président de la république moom bi ñu ko waxee serment moom dafa ni moom du def allégeance kenn moom il est pour la république. comme gouverneur. bi événement yi jàllee ñu wàccee ko. comme gouverneur. waaw indi ko Dakar. Hmm. Euh, mu toog après Euh, Habib Thiam nga xam ne xaritam la. ñoom boo ko doon génnee école la la Fatal fi mu ne ndax du sama doom. moo doon directeur du bu Doudou Thiam. Doudou Thiam nekk na ak Senghor nekk ministre des affaires étrangères alors bi ñu nommé Habib Thiam ci gouvernement bi secrétaire d'État. Habib Thiam moom moo ñëw proposé Doudou Thiam. parce que boobu si Abdou Diouf li ah, jëlagul poste da ko daal ah, ci jël ko comme directeur cabinet Doudou Thiam jël Abdou comme directeur cabinet hmm. alors comme Doudou Thiam dafa am audience régulièrement avec président président de République toutes les semaines parce que boobu am moo doon ministre d'État moo doon affaires étrangères hmm. su nekkulaan Abdou Diouf dem ci Senghor hmm. <laughs> d'accord waaw gis

daal mmh. di ko jël comme directeur de cabinet. d'accord noonu ko secrétaire général la présidence de la république. Mmh. Mmh. ensuite jël ko nommé ko ministre du plan. et la coopération. donc sur après nommé ko premier ministre. topp ko xam xam ko si yëpp nag. mooy wane ne Senghor ci xam-xam lay. sukkandiku xam-xam parce que kii moom ko xëy na ko mais bu mu gisee xam-xam mu xam lay sukkandiku. Mm. compétence mu ne ah il était major de bi mu ko jëlee test mu nekk premier ministre pendant dix ans mm. dix premier ministre ah la te Senghor mosu ak gis yi moom deful tout ça déedéet gis moom ko moo tax bi ñuy wax affaire générale mun leen man kii vraiment su ma amee je laisse à la génération mhm. c'est sa génération qui est pouvoir le pouvoir ñu ma àndaloon nag il faut ñu gëm yàlla nag xam nekk nag Moustapha <laughs> waaw <laughs> ay Djibo euh, bon ñoom c'est des hommes politiques purs mhm. <clears throat> parce que Moustapha Niass c'était le secrétaire de la fédération des étudiants UPS pour ñu jox ko Djibo ñoom c'est des politiciens purs vraiment PS PS pur pur dur moom c'est un technocrate qui est venu par accident à la politique. Mm -hmm. Comme Senghor rek. Senghor n'était pas politique au départ. il était venu comme savant intellectuel chercheur dugg ci par accident. ak mu gis aussi Abdou am mu dugg am ci politique. d'accord. xam am ko tam mu mu dugal ko ci politique jox ko jox ko pour pour l' état pour l' état. te loolu nag parti fonctionnement parti mm-hmm. alors moo tax effectivement bari ko ko meroon moom bon mu leen nag bon il faut on est la place aux jeunes mm-hmm. la place aux jeunes sa génération kooku mooy Senghor ah. alors euh, lan la bàyyi aussi ci parti socialiste bàyyi na réew mu mu tabax mm-hmm. nation un mm-hmm. Euh, mais parti socialiste naka la ko Senghor bàyyee bi muy dem bàyyi na un parti structuré parce que ni ma ko waxee le PS était l'un des rares partis boo xam ne bi muy dem dem ci village te doo gis la structuration du parti c'est extrêmement important lu ma la wax le comité de quartier des comités les sous-sections les sections les coordinations les unions régionales jusqu'au conseil national congrès tout ça structuration hiérarchique de la au sommet également des structurations qui fonctionnent à merveille des gens qui se réunissent des rapports à chaque conseil national dañaa les rapports de coordination coordination bu ñu ñëw rapport dañaan diw yoonu rapport am coordination rapport ah la ah parce que moi j'étais à la base comme je dis en la coordination de mais tous les trois mois de un rapport au, au secrétariat de l'Union parce que ça veut dire que pour ñu def rapport il faut que def ay activité mm-hmm. activité. Et puis le renouvellement des instances, mmh. par la voie démocratique, par la vente des cartes ça, la, la partie parti vraiment était de petits intellectuels, ils toog Dakar c'est ça c'est ça la force du parti. force du l'adhésion depuis la base. ci base la ñu commencé yéeg structure bi foo dem fekk fa. un militant socialiste une structure socialiste aussi organiser une méthode siège bi également nga xam ni ça a été conçu par des contributions volontaires dinañ na ay ay lam lu ne ordonné ko pour day raxas pour tabax ko à l'époque c'est pas un budget l'État non c'était des contributions des volontaires des manifestations ay lamb stade lu ne encaisse xaalis ba pare tabax ni ko teg ko fii maintenant le fonctionnement du parti nag les les gens les, les responsables mm. tous les responsables qui étaient invités de mandat doivent contribuer a au fonctionnement du parti en, plus maintenant des mm. euh, de l'achat des cartes la fi bàyyi un parti structuré mm. et stratifié à xam ne réew mi yëpp daj daj na fi bàyyi comme parti bàyyi foofu aussi nag des des cadres compétents tous les niveaux euh, en bureau politique Euh, un congrès un conseil national xam ne tout le monde s'exprimait et puis une structure de base nga mm. xam ne vraiment ñëpp nekkoon nañ fi ah bon yaayu de am na xaw am du conflit de génération mais ça s'est vite éteint mm. parce que ab dafa leen woo intégrer leen mm-hmm. jox leen seen responsabilité ah après nag ñoom bi xam ne mag également ci ne créé le conseil des sages dafay ko xam ne kii dem nga ba mënatoo militer nga magal nga ñëw fii pour jox ay conseils. Mm. tu n'as plus aucune ambition de xëccu la base. Mm-hmm. loolu mooy lu ko ay jafe-jafe amee aussi ngeen tax. ay jafe amee jafe parce que yow séntu séntu dara lu dul. Mm. nga parti dund yàgg fi nekk. wutu mm-hmm. dara pour sa bopp. dama parti bi dund lu xew ñu ñëw xalaat jox ay xalaat dimbale pour ñu ñu dépasser loolu. Mm. dépasser am dépassement. Mm-hmm. alors tey euh, parti socialiste dañuy dégg ñuy wax l'héritage Senghor wala le legs de Senghor politiquement Euh, tey lan la mun a téye nii mooy héritage euh, ndono politique bu leen fi sengoor bàyyil te ngeen di ko sàmm ba tey. mooy le la la la la la philosophie socialiste la la la doctrine socialiste nous ne sommes pas des parti socialiste xalaata moo di il faut ñu bàyyi xel ci nit ki son développement son la Senghor waxoon waxoon. l'homme est au début et à a ngi téye loolu ba ah, léegi. waaw développement la Senghor waxoon loolu la. parce que nit ki nag pour nga fonk fonk nga am ay jikko ay jikko ñooy dafa nit xam nit du du du banque banque moom rôle mooy day bari bari bari nit ki nag day day nitee dañu fexe ba mu nitee euh, jàng faju liggéey dëkk fu dëkk dëkk bu baax alors xam nga Senghor moo créé woon ay affaire ci cap HLM parce que à l'époque bëgguñu woon nit ñi saax saaxee suuf si woon créé structure nationale yoo xam ni ñooy tabax. nit ñi di dëkk. nit ñi di dëkk. doo bàyyi kenn mu mu jël yu bara bara dafa ay immeuble tabax da ngay tabax nit ñi dëkk di fay ndànk-ndànk. malheureusement tey looloo xew. nga xam ndànk-ndànk. Mm-hmm. ak HLM bi ngay créé Afrique yu bari daa ñëw jël modèle. Mm-hmm. et puis. xalaat bi si moom la jógee. xalaat bi si et puis dafa wax ni comme yi. Mm-hmm. waruñu am xaalis. waruñu am xaalis nañ leen prix di la jox si kaab la nga xam ne nga fay. location vente nga dëkk di fay nga dëkk di fay. nga dëkk di fay. loolu moo moo doon philosophie bi. Mm. alors euh, monde rural nga encadrement. Mm. paysan di leen leen lebal ñuy fay progressivement. vision boobu ba léegi PS koy sàmm. waaw mais xam nga léegi. jamono changé na jamono changé. bien sûr PS nitu pouvoir. mais ba tey gérer wu leen pouvoir mais parti bu nekk gérer pouvoir moom mooy yitteem peut nekkoon ngeen si wàcc am ngeen yéen a ñëwaat donc ba tey wàccu leen yoonu Senghor boobu yéen a ngi ndono bi philosophie socialiste moom du dañ les valeurs socialistes moom du dañ moom ci socialiste parce que moom nit ki moom c'est au cœur au début à la fin développement am jikko sàmm jikkoy vertu parce que l'éthique mooy base nit ki foog nga philosophie. nga xam da ngay nawlonte nawlonte ñu nawlonte ñu nekk société humaine euh, de commune. avec mm. les règles de bienséance honnêteté probité morale. parce que loolu moo dem il faut le patriotisme gëm sa gëm réew mi maandu euh, soo déggee tey. génération bi wala yi fekkee sax réunion socialiste yi di wax ne PS def na fi 40 ans ñu dara looy tontu. waaw xam nga loolu da day defee reetaan parce que ñu koy wax ci régime bi lañ lañuy juddu ci lu màgg ci lañ ba tekki li Senghor def ci a école ak ñu mu encouragé enseignement bi ñuy wax ñëpp ci foofu lañ jaar ba jàng ba yegg si li fi nekk li fi nekkoon comme tali comme structure hôpital ak école ñu mu fonctionner loolu état régime Senghor moo ko fi def ñoom dañu ko dañu ak évolution bi mais avec très de moyens daf nañ loo xam ne ci nga sukkandiku pour mën a tekki a tekki ñi fi nekk ñëpp ci régime Senghor lañ jàngee ci lañ juddoo ci la màgg ci la yaroo ba ba gis ci lañ xam yoon wi tam également xam seen dëkk loolu moom ça ça nous parce que euh, au contraire Senghor dafa investir ci l'homme On n'est pas sur, sur, sur, le biométrique. Là, privilégier l'homme. Éducation, santé, formation. moo gënoon nekk yitteem. moo gënoon nekk yitteem. loolu nag ci ci ci la ñu ci la ñu wéy moo tax ñu nekk également yee yeewu yeete ana am suñu wax yeewu yeete. y'a des émissions yoo xam ne war nañ nekk pour yeewu yeete. alors vraiment développer vraiment la connaissance la compétence et puis la rigueur et puis l'éthique morale. Mm, du prôner civisme aussi. pour patriotisme le civisme. patriotisme l'éthique. Euh. alors l'après pouvoir naka la ko Senghor dundee bi mu bàyyee nguur. est-ce que non bi mu bàyyee nguur dafa bàyyi nguur moom carrément avant mu bàyyi nguur tamoon na këram. xam nga pour dire euh, Senghor nu mel Senghor mosul wut alal mosul nekk problème. kon dafa jógee raxasu ci ba set wecc. Euh, set wecc. génn ci gouvernement bi génn ci parti bi jox ko yëpp nekk nekk fii kër les dents de la mer tugg les dents de la mer. Mm, nekk ci leneen. nekk daan na sax daan day dem ci kër ku xel mooy ah mais ci kër kàq da ngeen di <laughs> littérature mm. di bind ay di ba dem française mm-hmm. dem académie française continuer moom loolu mos a moom mooy mm. culture. Mm-hmm. waaw mais rëcc wu ci dara te tam topp topp ci dara. Mm-hmm. moo jàpp boppam. ba mu bàyyi rëccu dellu si waat. xalaatul jéemul sax dellu si. jéemul xalaat pour mu dese ci benn loxo ci biir. amu ci comme li ñu gisoon feneen. waaw moom moom dafa bàyyi vraiment topp culture am. li nga xam ne moom la ko tàmbali woon. Mm-hmm. ci ci ci la dellu parce la gëm. loolu la xam loolu la xam la ñu jeexal nag ak ay jikko Senghor. Mm. tey soo ñu doon limal ay jikko Senghor yi nga xam ne jàpp nga ne génération yi wala tout homme politique. Mm. war na ci roy lan lay doon. jub jub honnêteté rigueur organisation ak méthode. Senghor bëggul même su de discours am interview daf koy daf ko daan bind loolu ko wax. Ah rigueur rigueur rigueur rigueur rigueur la pureté de la langue française rigueur dans l'écrit mm. rigueur organisation et méthode comme on dit. Mm. structure yëpp dëgg dëgër vraiment rigueur ci boppam. sax mosoo muy muy def ay fanfaronnade même même si euh, habit vestimentaire mm. c'est toujours du du du foncé simple simple et sa nourriture également c'est des plus simples mm. n'a jamais cherché des extravagances affaire u ay avion oto yi mosu ko mosu vraiment ay parking ay huit huit am tey sobriété sobriété vraiment éthique morale mm. la morale la culture la religion. Vraiment, tout doit de l'homme et l'homme. Le le respect mutuel. Respect des, respect de principes, de rigueur, d'organisation et de méthode. de transparence et d'honnêteté. Vraiment rigueur dans la gestion. Il était intraitable sur, la gestion. ah les rapports d' inspection moom. Mm. léegi rapport d' inspection d' a impunité amul woon. jamais de la vie. épinglé moom il faut jamais ko càngoor càngoor kenn xalaat non. daal protéger kenn. jamais de la vie inspection ku inspecte mais de de son temps ku ku ku ñu mos a inspecté wàcc nañ la wala tëj la. nga dem ci yoon. ah oui les gens avaient une peur bleue de l' inspection inspection générale d' état les rapports d' inspection d' état étaient respectés à la lettre. non moom moom. recommandation yëpp la daan topp. à la lettre à la lettre. à la lettre à la lettre à la lettre moom. tey du ngeen toog di regretter. jamonoy Senghor. no non loolu jamono en ñun daal loolu la ñu loolu la ñu loolu la ñu génne réew mi dañu réew mi réew mi aw ci yoonu yoonu jub yoonu mandu parce que tant julli la ñu. da ngay da ngay mandu mandu lu ñaaw amul ji dóor martu. al daal moom la la gestion. dans la dans la rigueur le respect de principes. kooku moo nekkoon Senghor moom la ñu doon waxtaanee tey amoon nañu mbégte lool dalal la ci à l'occasion du vingt-et-unième anniversaire bu mu génnee àdduna ñaar fukki at ak benn ci ren euh, Senghor làqu parti socialiste doon ko fàttaliku ñu itam ñuy jàppale leen ci ah, fàttaliku gi ah, ngir ah. gën a xamale jamono ak peut yi ka xamule euh, kan moo nekkoon Léopold Sédar Senghor euh, doyen Moustapha Diaw secrétaire général conseil des sages bu parti socialiste la ñu doon dalal ñu bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi waaw ñu Euh, dafa ñuy jox mbégte ak cawarte ndaxte day xam ni wane ni lu yàgg dëgg la Senghor jóge na fi en deux mille un vingt et un ci ren ñu di ko fàttaliku parce que gëm nañ ni ku jar fàttaliku ko jëriñ na réew mi te wane yoon xam suñu awoon kon lépp mën na aw yoon soo lu jógee ñëw te di di siiwal li ñuy def da nga ñuy soññal soññ ci ñu aw ci yoon ministre euh, Augustin Tine ministre d'État bi président Macky Sall yebal mu ñëw fa tey ci cérémonie ba nee na ñun waruñu jàpp Senghor comme si àll bopp ñun rek. Mm-hmm. Senghor ñëpp la nee liggéey. Mm-hmm. tax na ba ñu war dañ ko war a yaatal ci réew mi ak ci àdduna bi. Mm-hmm. ñu bëgg ci loolu itam nag ah naam tàmbali woon nañu ko mais Covid bi moo ñu freiné parce que at at yii weesu dañu daan def colloque. ak journée culturelle ak ay cérémonie. di di la pente Senghor ses œuvres ses écrits ak les manifestations mais Covid bi moo freiné woon loolu. Mm. moo tax ñaari at yi daf ko simplement mm. waaye su yàlla mayee mm. fekk ak tal parce que ñii ne màggal ndaxte mérite na ko yàlla te tam njëriñ ci réew mi mm-hmm. xale xam li fi nekkoon avant ni mu demee mm-hmm. ak fi ñu war a jëm ëllëg suñu bëggee baax fu ñu jaar fu ñu jaar. bàyyi na fi loo xam ne. royukaay la. Mm-hmm. il faut que ci ko bëgg lu baax ndaxte ku fi jógee ñaar fukk at ak benn ñu lay fàttaliku. Mm-hmm. te bu kenn du ni accam. saa wu dëkk man ma bay na waaram bu mat. bay na waaram bu mat te won na yoon wi te tax ni tam nag ñu fonk nit ku ñuul ci adduna bi. Mm-hmm. fonk nit ku ñuul ak xam-xam ak njàngam. fonk bi yëpp ci xam ak fonk itam Sénégal ci njëlbeen nga ci état de droit. Mm-hmm. loolu itam ñu ne ñaan mu sax. ndaxte loolu tamit ci li tax ñu dimbali ci ci la bokk waaw. Ah. Mm-hmm. jërëjëf. Ah, ok <laughs> merci beaucoup Rewmi et bon euh, euh, Rewmi. Rewmi FM mm. et bon vent Rewmi FM. jërëjëf mbokk yi yéen itam jërë ngeen jëf yéen ñi àndoon ak ñun ci seen émission démb ak tey gërëm jaabo jàllo mi nekkoon si jàppandal gi Fatou Thiam am la woon ci kàddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm.